xaatami nabiyiin wa ala aalihi wa saxbi wa taabiciin wa taabicihim bi ixsaanin ila yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa taala nous nous rencontrons comme promis aujourd'hui autour des 22 vers du chapitre 8 de la kawakibun durriya de imam al Busayri cette chassida est plus connue sous le nom de Bourde mais est aussi célèbre sous le nom de Bour'a c'est-à-dire le remède à cause de ses effets bénéfiques sur les douleurs physiques morales mentales psychiques de ceux qui aiment l'imam des imams la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut yi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala wërsëgal nu daje tey fas yéene yër ñaar fukk ak ñaari bayit yi nga xam ni moom moo tëgg faslu taamin bi buntu juróom ñetteel ci kawaakibu durriya kawaakib durriya bi ñu ngi ko gën a xam ci tuuru burd muy xasina boo xam ni tudde nañu ko bur a mooy saafara si ndax gis nañ ni dana saafara ci ay tawati yaram tawati jikko tawati xel tawati ruux ci ñi nga xam ne ñooy ñi sopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam Ces 22 vers du chapitre 8 de la Kawakib Durriya nous racontent le du prophète alayhi salam mbokk yi faslu saamin bi fii jihaadi nabi sallallahu alayhi wa ali lay wax dinu waxtaanal ci xare yi ci jihaad ci jàmbaar gi nga xam ni jàmbaar nañu ko jaamaarloo ak noonu yàlla yi ci toolu xar yi mawlaaya salli wa sallim daa'iman abada ala habibika xayril xalqi kullihim salli wa sallim daa'iman abada ala habibika xayril xalqi kullihim busayri mu ni raat qulub alhida anbaau bi'asatihi mu ne xibaaru yónni yónni nañu yonant bi alayhi salaam rekk dafa tiital xolu ñi nga xam ne ñooy noon yi kanab atin ajfalan xufran min alxanam mu mel ni gaynde sibi gu yuuxu fekk xar yaa ngi doon noppaliku ñu dégg yuuxu gaynde sibi gi ci seen biir l'annonce de sa mission prophétique jeta l'effroi dans le cœur des ennemis de Dieu comme un troupeau insouciant surpris par le rugissement d'un lion ma zaala talqaahumu fi kulli muctarakin dañul di tàmpook ñoom ci toolu xare yi xataa xakaw bilqama laxman ala wadami ba mu gi ni ñu leen di duure xeej yi dafa nooyal seen yaram bi daggat ke ba ñu mel ni yàpp wu ñu teg ci taabalu buuse taabalu jaaykatu yàpp Il combattit les mécréants dans tous les champs de bataille, déchiquetant leur corps à coups de lance et de sabre, jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de la viande hachée sur l'étal d'un boucher. waddul firaar fu ñu dajeek yonent bi ak soldaaram rek seen mébét yëpp mooy daw daw sore toolu xare bi fa kaadu yax bi duuna bihi ashla dañu doon mujj ñee daggitu yàpp yooyu nga xam ni chaalat ma al iqbaani wa raxami cóoli yi ak tan yi ñëw nañu daggat ka ci yàpp seen noon yi nga xam ne moom la ñu rey yéeféer yi dañu doon mujj ñee daggitu yàpp yooyu ceel yi di yóbbu ci kaw asam ils désiraient tellement fuir loin de l'armée musulmane qu'ils enviaient les morceaux de chair de leur mort emporté par les aigles et les vautours dans les hauteurs du firmament mbokk tam di layaali noonu la bisi doon jàlle wala na iddataha taraay bi ak tiitaay tax na xamatuñu limu bis yi yan bis lañu ñu toll yéeféer yi xamuñu ko mu maa lam takun min layaalil ashuril hurumi lu dul xanaa fan yi nga xam ne nag dugg nañu ci weer yi ñu wormaal nga xam ni kenn du ci xeex tamxarit muy muharram rajab mu dar muy ndeyi koor tabaski diggi tabaski zul qaada ak zul xijja di tabaski bis yooyu de bu ñëwee dañuy xam ni weer yii nag yegsi na les jours passés dit Boussaïri sans qu'il puisse les reconnaître à l'exception des mois sacrés où la bataille est suspendue et ces Tabaski diggi Tabaski ndeyi koor et tamxarit ka annama diinu dayfun xalla saaxatu diine ji dafa mel ni gan goo xam ni ñëw na dal ci ñoom forcé leen par force jël leen otage bi kulli xarmin ila laxmil ida xarim diine ji nag nga ànd ak soldaar yoo xam ni njàmbaar yoo xam ni dara gënu leen neex lu dul yàpp noon yi rek pour eux l'islam ressemblait à un hôte descendu de force chez su sous une escorte de braves guerriers avides de transpercer la chair de l'ennemi jur bahar xamisin fawqa saabihatin l'armée jullit ni juróom-ñaari laaf la daan doon wu ci ne nga war ay gawar lañu yarmi bi wañ bi mawjin minal abtali multatimi euh, laafu wu ne mu ngay sànni ay waamey soldaar ay waamey njàmbaar yoo xam ne ñu nga tampaloo di dal ci kaw noonu une armée de cinq colonnes de cavaliers aux chevaux impétueux qui déversaient sur l'ennemi des vagues compactes de eau min kulli muntadibin lillahi muhtasibin ñi ànd ak yonent bi alayhi salaam ñoom ñëpp ñooy ñi nangu wuyu woote yàlla bi te dara taxul ñu wuyu ko lu dul wut ngërëmal yàlla ñooña yastu bi mustasilin lil kufri mustalin ñooñu ñooy song noon yi dugg ci seen biir ak seen jaasi yi nga xam ni ñu ngay déjjati di dagg reenu yéeféri di leen alag des combattants ayant répondu à l'appel de Dieu dans l'espoir de sa récompense foncer dans les rangs des mécréants les de leurs sabres tranchants bokk xataa gadat millatul islaami wa bihim ni la taxawee di difi diine ji ba yoonu lislaam bi mujj ngir seen taxawaay ak seen njàmbaar ak seen pas-pas min baadi xurbatiha mawsulata rahim gannaaw tumuraankem ja ñépp wëlbatiku jox ko cër cëru mbokk mu gën a jege jusqu'à ce que la doctrine islamique naguère marginalisée se vit reconnaître les droits de la parenté à cause de leur bravoure et de leur détermination makfulatan abadan minhum bi xayri abid ñoom ñooy aar ba faw noona lañu jële diine ja jël kafaalaam nangu ko yor di ko sàmm taxaw ci moom taxawaayu ngën ji baay wa xayri baalin ngën ji jëkkër falam taytam walam taimi diine ja taxa amatul melokaanu njirim amatul melokaanu ku jëkkëram génn àdduna ci tumuranke désormais sous la tutelle du meilleur des pères et du meilleur des époux qu'étaient les musulmans de la première heure l'islam sorti de sa situation malheureuse d'orphelin et de veuve mawlaaya salli wa sallim daiman abada ala habibika xayril xalqi kullihim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 laajte ña doon tàmpoog ñoom di xeex ak ñoom di leen jéem a génne ci seen dine maza raa minhumu fi kulli mustadami lan lañu leen won ci bépp daje boo xam ne daje nañu ko ci toolu xare ils étaient aussi fermes que les montagnes demandent leurs adversaires les souffrances qu'ils leur ont infligées dans tout leur champ de bataille wasal Hunaynan laaj toolu xare bu Hunayn wasal badran laajal badar wasal uhudan laajal uhud bërëb yi yëpp fusulu xatfin lahum adha min jamonoy faagaagal yéeféer yi la yoo xam ni moo gënoon a metti ci ñoom que bu dal ci seen kaw interroge Hunay Badr Uhud qui furent des périodes plus meurtrières pour les mécréants que la peste almasdar albiidu humran baadama waradat seen xeej ya seen jaasi ya di melax ci weexaay dafay mujj xonq cur gannaaw ba nga xamee ne raay na min al ida kulla muswaddin min al lima loosu yéeféer ba ca fay tollo keru nopp ya Leur sable blanc devenait rougeâtre à force de trancher le cou de l'ennemi à la lisière de la chevelure juste sous l'oreille. wal kaatibiina bi sumril xatti seen xeej ya dafa mel ni ay istuloo yu ñuy binde seen xeej ya seen fett ya ñu ngi koy yette ci bantu xat bantu xat yooyu bàyyiwul xarfa jismin xayra mun ajib benn yaramu yéeféer lu dul bind na ca maas ca li mu la bëgg wax mooy jam na ka se servant de leur lance en bois de hâte comme d'un écritoire d'une écritoire il ne laissait aucun corps ennemi sans le cibler sans le cribler de points diacritiques chaaki silaahi lahum sima tumayyizuhum seen fett ya na muy tiime seen bopp ya seen xeej ak seen jaas ya na muy tiime seen bopp ya moo doon màndarga bi leen ràññee ak keneen ku dul ñoom wal wardu yamtaazu bi sima min assalami fleur bu neex xet dana wuuteeg xatax ci melokaanam boo leen seeni le hérissement de leurs armes était leur signe distinctif la rose se distingue bien de la ronce par le parfum tuhdi ilayka riyaahu nasri nashrahu xibaar yi nga xam ni mooy seen xibaaru ndam yi doon na yegsi ci yow mel ni parfum bu neex fa tahzabu zahra fil ak akmaami kullakami boo leen gisee ñu sol seen mbubbi xare yi dañuy mel ni tóor tóor boo xam ni bi mu nga nekk ca fleur ba koy laxas Les nouvelles de leur victoire se répandent comme un parfum. Vus dans leur uniforme, tu les prendrais pour des fleurs dans leurs bourgeons. Ka'annahum fi zuhuril xayli nabturuba boo leen séenée nañu tooge ci seen kaw fas ya ñu ngi mel ni garab gu sax ci kaw tund waaye min shiddatil xasmi seen dogu ak seen pas-pas moo leen ci téye la min shiddatil xusumi takkuñu seen bopp ci kaw naka ragal ya daan defe démb ci toolu xare ils étaient fermes sur le dos de leur monture à cause de leur détermination et non de leur sang comme une plante sur un monticule de terre mawlaaya salli wa sallim daa'iman abada ala habibika xayril xalqi kullihim salli wa sallim daiman abada ala habibika xayril xalqi kullihim taarat qulubul ida min basihim faraqa noonu la xolu noon ya doon gëlëme ngir seen tartar ak seen jàmbaar ñoom jullit ñi ci seen kaw fa ma tufarriqu bayna al bahmi wal buhumi l'armée yéeféer yi mënoo leen won ràññee ña nga xam ni ñooy seeni jàmbaar mënoo leen ràññee ak euh, mbote xar su ndaw su ñemewul hóob le cœur de leurs ennemis vacillait devant leur bravoure et les plus courageux ne différaient pas d'un troupeau affolé wa man takun bi rasulillahi nusratuhu koo xam ni kii ci yonent bi alayhi salaam lay jëleen ndimbalam in talqahul usdu fi ajamihi tajib bu ko gaynde sibi dajaloon ci biir manding mi gaynde ga dana ni muut làqatu ba moom mu jàll celui qui bénéficie du secours du messager d'Allah paix et salut sur lui les lions qui le rencontrent dans la forêt se dans leur terrier walan tara min wariy gayri muntasirin doo gis mukk ku far farandoog yonent bi alayhi salaam boo xam ni du am ndimbalu yàlla du am ndam di gañe te dara du tax lu dul bihi ci mbaaxu yonent bi alayhi salaam wala min aduwin xayri munqasami doo gis itam noonam lu dul yàlla day rëq ndigam rek tu ne verras jamais son partisan ne pas jouir du secours de Dieu subhanahu wa taala ni son ennemi déclaré ne pas être brisé par Dieu, le ummatahu fi xirzi millati làq na xeetam wi ci gàngunaayu jàngaleem gàngunaayu li diineem indi ka laysi xallan ma al ashbaali fii ajab mu mel ni gaynde gu wàcc denc ay doomam ci biir paxam il a installé sa communauté dans la forteresse de sa doctrine comme le lion installe ses petits dans son antre la cay firnde mooy kam jaddalat kalimatullahi min jadilin ñaata yoon nga gis nit ñëw di dàggaseeg moom alquran yeeg ci mbiru yonent bi alayhi salaam wa kam xasamal burhaanu min xasimi ñaata yoon nga gis alquran noppiloo ki nga xam ni moo ñëwoon di dàggase ngir layam yu leer combien de négateurs ont été confondus par le Coran et combien des adversaires du prophète alayhi salam ont été réduits au silence par la force de l'argument du Coran kafaaka bil ilm fil ummi yi mujizata doy na la bu mel ni bosam bi nekk ci koo xam ni kii jàngul dékkul téeréem benn sëriñ mu saka ba wala abc loola nag rawatina fil jaahiliya ci jamono ceddo ga jamono réer gi nga xam ni xam-xam amul sax bon jamono bu mel nii ku ci am xam-xam bi loolu doy na kéemtaan wa taadibi fil yutumi doy na kéemtaan yaram ak tegginam bu mel nii mën a nekk ci njirim koo xam ni amuloo bàyyi amoo ndey ju lay womma di la tegaat ci yoon mawlaaya salli wa salli daiman abada ala habibika xayril xalqi kullihimi

Mais retenons que l'islam est une religion non violente. C'est pourquoi, au plus fort de la persécution et de la maltraitance, le prophète alayhi salam conseilla aux compagnons la résistance pacifique. mbokk yi tomb bi Busayri jël ci buntu juróom bi tomb la bu tolloog jamono lislaam nag moom du diine xeex diine jàmm la ànd ak jihaad am na jàmmam moo tax ba nga xamee ni bi mettital bi tar na yonent bi alayhi salaam di dénk jullit ñi ni leen bu leen fayu muñ leen xabaab ibn al arat raconte ceci nous sommes allés voir le messager d'Allah, la meilleure des créatures, pour nous plaindre auprès de lui. Nous lui nous l'avons trouvé accoudé près de la Kaaba, la tête sur son manteau plié en guise d'oreille. Pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous secourir? lui avons-nous dit. Que ne l'invoques-tu pas pour qu'il mette fin à la persécution dont nous sommes l'objet? Il nous répondit parmi les croyants qui vous ont précédés. Il y en a que les mécréants placés dans un trou pour le scier et le diviser en deux parties sans qu'il renie sa foi. Il y en a à qui on arrachait la peau avec un peigne en fer qui lui déchirait les nerfs. Je jure par Dieu que cette religion s'imposera si bien qu'un cavalier parcourra un jour la distance de Hadramaut à Sanaa sans craindre personne d'autre que Dieu subhanahu wa ta'ala ou bien les chacals contre son troupeau mais vous vous êtes trop pressé xoolal Habab ibn al-Arat nee na chakaw na ila rasulillah dem nañu jàmbat ci yonent bi alayhi salaam ni ñu nu bundu xatale ci màkke ñu ngi ko fekk nag mu nga soonu ci booru kaaba gi njaganaayoo mantom ba ñu ne ka laa tastansiru lana xanaa doo sàkku yàlla mu dimbali nu ala tadu doo ñaan yàlla mu génnee ñu ci lii mu daldi jóg toog ni leen amoon na ci ñi leen jiitu ñoo xam ne dañuy jël ci ñoom benn nit yuxfaru lahu fil ard gas pax ci suuf suul ka ci fa yujaalu fii fa yujaaw bil minchar indi nag si di ko xotti ba dagg ka ñaari pàcc yaramam nekk ñaari xaaj te loola daawul tax mu génn diineem weddi pas-pasam amoon na ci ñoom ñoo xam ni daañ nañu jël jartu weñ di xotti seen der muy yóbbale seen siddit ya waaye loola taxul yasudduhu an diini mu bàyyi diine wallahi maa ngi waat yàlla yonent bi alayhi salaam mooy waat mu ne mbir mi di diine ji dana sotti dana sotti jàmm am xataa yasira raakum min sanaa ila xadramawt laa yaxaafu illa allah ba nit dana waree fii moom kese jógee sanaa dem xadra mawt du ragal lu dul yàlla subhaanahu wa taala boog xanaa till goo xam ne gi song na ka dal ci kaw jur gi mu àndal walakinakum tastaajiluun waaye yéen da ngeen yàkkamti da ngeen a yàkkamti alors les musulmans s'abstinrent de répondre à la violence par la violence au coup par les coups. Ils tendirent l'autre joue jusqu'à bien longtemps après l'émigration à Médine. Jusqu'au moment où Dieu subhanahu wa leur donna l'ordre de se défendre. noona jullit ñi dal wéy rekk ci doxal jàmm bañ delloo violence ci mettital bañ ku la dóor nga fayu duñu fayu koo dóor mu muñ ba bi ñu gàddaayee lu yàgg gannaaw gàddaay gi yàlla nag sant leen nag ku leen ku dalati ci seen kaw na ngeen fay le verset dit Dieu prend la défense des croyants Dieu n'aime aucun traître ingrat il est donc autorisé à ceux qui sont injustement attaqués de se défendre Dieu est capable de leur porter secours ceux qui sont injustement expulsés de leur demeure pour avoir simplement déclaré Dieu est notre seul Seigneur. Si Dieu ne repoussait pas les injustes par les justes, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Dieu soutient ceux qui soutiennent sa religion. Dieu est assurément fort et puissant. sourate le pèlerinage verset dikk nag dal ni ku ñu doorati fayul mu ne inna allaha yudaafiu an allazina yàlla mooy défendre mooy difi ñi gëm inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafur yàlla bëggul kuy wor yàlla bëggul yéefér ku ko weddi bon nag usina lillazina yuqaatiluun may nañu ñi nga xam ni ñu ngi leen di xeex bi annahum zulimu ci kaw tooñ leen dong ñu fayu wa inna allaha ala nasrihim la qadir te wér na ni yàlla dana leen dimbali ba ñu am ndam ci képp ku dal ci seen kaw ñooña ñooy ñan ñi war a xeex lazina uxriju min diyaarihim bi ayri haq ñu ñëw rekk nangu sa kër génnee la ci lu tegul ci benn yoon génnewuñu la lu dul an yaqulu rabbuna allah man yàlla dong lay jaamu duma ci boole keneen gis nga bu dul ko nag yàlla di difi ñu bon ñi ci ñu baax ñi la huddimat sawaami wa biya wa salawaat wa masajid bon dinañu màbb église yi màbb bërëbu jaamukaay yahud yi màbb jàkkay jullit ñi nga xam ne dañu cey tudd tur yàlla lu bare wala yansuranna allahu man yansuru yàlla nag mooy dimbali képp ku dimbali diineem inna allaha la qawiyun aziz yàlla mooy borom doole yàlla mooy ki not kenn mënu ko rek ci suratul hajj mais amis auditeurs bien qu'autorisés à combattre celui qui l'agresse le prophète alayhi salam a toujours privilégié le dialogue et la recherche de compromis mais d'un compromis qui ne compromet pas pour autant les intérêts de la religion, ni les droits de Dieu subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est ainsi que même en position de force sur ses ennemis, le prophète alayhi salam accepta de conclure le fameux pacte de Houdaïbiyah. Ce jour-là, les compagnons ont exprimé leur incompréhension de ces clauses qui leur sont apparemment défavorables vu position de force par rapport à leurs adversaires mbokk yi nga fekk yonent bi alayhi salaam même nañu ko xeexal waaye moom toujours mu ngay waxtaan di dialogue di seet fan lañu mën a déggoowe li fekk nag loola yàqul dara ci li diine di santaane loola jalkatiwul dara ci àqu yàlla ci kaw nit ñi ak ci kaw suuf moo tax mu nangu la mu nangu xuday bi bis booba ñépp a jaaxle saxaaba yi nañu xam lu tax ñu nangu lii fekk ñun ñoo ëpp doole ñiy jekku leen enfin la non violence a poussé l'islam à fixer de nouvelles règles des règles qui ont humanisé et changé le visage de la guerre moderne c'est l'islam qui a inventé la notion de crime de guerre c'est l'islam qui a le premier parlé de crime contre l'humanité mbokk yi jàmmug lislaam tax na ba mu wutal xeex ay teggin teggin yoo xam ne tax na ba xeex nekkatul lu la neex def lislaam dal di indi ni am na loo xam ne ku ko def dañu naan yow def nga crime de guerre wala yow krim bi nga def àdduna yépp nga tooñ voici ces règles telles que rappelées par Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu Yazid ibn Abi Sufyan, quand il l'envoya combattre en Syrie, il lui dit, Je te recommande dix choses. Ne tue pas d'enfants, pas de vieillards, pas de femmes. Ne coupe pas d'arbres qui portent des fleurs ou des fruits. Ne détruis pas les jeunes pousses. Ne tue pas de moutons ou de chameaux si ce n'est pour manger. Ne brûle pas de dattiers et ne coupe pas leurs branchages. ne vole pas le butin de guerre et ne fuit pas devant l'ennemi mbokk yi tegginu xeex yooya moom la ñi jiite jullit ñi ñëpp ak general yépp daan santaane Abu Bakrin Siddiq ba muy yebal xare ba ca Shaam te Yazid ibn Abi Sufyan jiite ka ma nga jàpp ca ngalaabu fasam wa ni ko inni uusi ko bi ashrin di ko gunge ni ko dama lay dénk fukk yi laa taqtulunna sabiyan bul bul rey xaleel wala mraatan bul rey jigéen wala kabiran haraman bul rey màgget wala taqta'anna shajaran muthmiran bul dagg garab goo xam ni gi ma nga ami doom wala tóor tóor na wala tuxarribanna aamiran bul yàqate saxayaay wala taqiranna shaatan bul rey gàtt wala baqaratan bul rey nag illa li makalati lu dul xanaa fekk pour lekk la wala tuxriqanna naxlan bul yàqate di di labal ay tàndarma wala taxriqannahu bul lakkitam toolu tàndarma la wala taxul bul sàcc ci màng gi wala tajbun bul ragal nag benn noon bul daw ci kanamu benn noon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sahbi tayyibina tahirin wa man iqtada bihim ila yawmi ddin mawlaaya salli wa sallim daa'iman abada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 ci buntu juróom-ñeenteel ñu nekkoon fii ci rajo senegal international àndoon ak sunuy mbokk Alioune Sow Mouhammad Chérif Diop nu ànd ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal nu dégg ak topp mbokk yàlla yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla na nu ko yàlla yomb mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal yàlla defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq eggul yiir nu ci malaanam sut yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg mbokki lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nu am yàlla bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina